nekkoon candidat nag ndax def naa sama déclaration mais ma nangu topp si madame le ministre Assome Aminata Diatta pour ñu ànd dem à la conquête de Kër ma Massar Nord déclaration bii nag euh, plénipotentiaires yi maanaam les responsable ñi nga xam ne ñooy njiitu parti politique yi nekk si biir Kër Massar Nord at mouvement yi Nous avons décidé muy politique muy mouvement citoyen muy mouvement yo xamné euh, dafa euh, profession Walu wala mouvement euh, yi lañu wala public jël ci suñu déclaration bi gannaaw bu parcours madame le ministre Aminata Diatta muy parcours académique maanaam wàllu jàngam wàllu xam-xamam wàllu xarañam buñ ko seetloo seetlu aussi li nga xam ne mu ngi koy def si biir Kër lu jëm si euh, social maanaam ndimbal askanu Kër Massar muy ndaw ñi muy mag ñi muy xale yi muy képp koo xam ne yaa ngi yeewoo si biir Kër Massar Nord euh, ñu gis que ne euh, loolu suscité na ay réaction yu bare si askan bi ba Nous euh, le 9 octobre bi passé euh, def déclaration d'investiture te ñuko ko mo ay délégués de quartier 54 délégués de quartier 49 badjenu gox ak 25 imams yu nekk keur Massar Nord ñom ñoo madame le ministre nous fi won de mi ngi mission bitim rew ñom ñu décision de dañuy investir madame la ministre xam nga ñi duñu ay politique ñii ci société civile nous avons bokk ñoo jël initiative pour investir madame la ministre alors si nous considérons cela nous ñu gis que ne euh, départementalisation bi dafa am lu bëri lu mu ëmb si lu pour askan bi si euh, kaw loolu ñu gis que ne juróom-benn commune ñoo le a département bu bees le muy département de Massar et ñun ñu bokk si benn si juróom-benn yooyu muy Kër Massar Nord ñu gis que ne euh, défi bare nañu lool li nga xamné Kër Massar non daf koy ñu jëm inondation jëm cadre de vie dekk way jëm sécurité jëm si walu liggéeyu xeyu ndaw yi Nous euh suñu xolé nous yépp ñu gis appel bi nga suñu président de la république di Macky Sall def nous pour que képp kuy wuyoo si turam wala képp koo xam ne soppeem nga mu woo leen si booloo si ñu nekk benn pour former unité rawatina waa Benno Bokk Yaakaar mu laaj leen pour ñu trouver consensus maanaam waxtaan ba juboo ba d'accord ne si kenn ne mooy jiitu ñu si des topp si ñu gis que force yooyu yëpp suñu boolee force yooyu yëpp euh, day doon loo xam ne lu am solo la lu am importance la lu ñu jëm si élection yi ñu jëm ñu gis aussi que ne li nga xam moy réalité politique bi maanaam euh, euh, contexte bi nga xam tay ji mom lañu nek ñu nekk euh, mu nar a élection yi ak limu ëmb yëpp si ay enjeu si ay tension si ay xëtëraay si ay engagement ñu ni ñun ñi jël nañu décision muy politique yi muy société civile bi nga xam ne ñoo fi teew tey pour investir tay ji tab madame le ministre comme nous candidat pour l'élection yi janvier 2022 euh, mu doon suñu candidat fils de la commune Kër Nord. alors li ma liroon si nous avons ñoo signé déclaration est-ce que jar na ma waxaat ko si olof. voilà donc nous avons signé la déclaration. Nous avons signé déclaration bi ñoo société civile société civile nak soko ko dafa am imam am délégué am ay am ay mouvement ay ASC association de de jeunesse ay groupement de promotion féminine ñooñu une société civile yi ñoo fi tew tey

ñun ñi la jël nañu décision bis ni ki pour investir son Diatta madame comme candidat Kër ça Nord wax